premier résultat yi génn na bu baccalauréat fii ci Mbour centre bi gën mag di Demba Diop ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa doon composé série S yi ñoom ñoo daal di jël raw gàddu gi ci jury 1261 ñaari mention très bien juróom-ñaari mention assez bien ak ñaar fukki mention bien ak ñaar lañu am. lii dem ci jury s bi je pense que résultat yi xaw baax na à mon avis baax na parce que mention yi bëri na et. Euh, ñi war a dem deuxième tour tamit xaw na tane parce que boo boo jëlee yëpp bon ci jury bi ils sont cent quarante je sais pas nag lañ koy waxee ci olof. voilà téeméer ak ñeent fukk mais boo seetee ba seet soixante onze ñoo am d'office te soixante onze boo yooyu am na ñetti ñetti euh, je pense euh, deux mentions très bien sept mentions assez bien et vingt deux mentions euh, sept mentions bien et vingt deux mentions assez bien donc loolu jar na. jar na saluer. chef de centre bi nag moom daal di bég ci résultat yi waaye tamit ci doxalinu examen bi. dinañ ko mën a yóbbu peut-être jusqu'à au-delà de soixante dix quatre vingt pour cent waa ce qui est un taux qui est euh, assez honorable maintenant liñ ciy préciser mooy ñun centre bu mag lañ trois cent dix-sept candidats mais li ëpp ci candidats yi composé fii du suñuy élèves élèves u école yi ñu wër la yi nekk ci biir euh, dëkk bi ñun euh, donc am nañ petit peut-être euh, quarante pour cent de nos élèves ñoo nekk fii mais au moins soixante à plus de soixante pour cent yi ñu ngi ci yeneen centre yi nekk ci biir dëkk bi fii ci Mbour premier résultat premier groupe bi bi mu génnee ñu saytu ne waa série sd yi ñoom daal di ñoo jëm ci kanam mention très bien bien ak assez yi yu si bëri ñoom ñoo ko daal di jël laata nag ñuy daal di demaat ci second tour yi